bismillaahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi barakaatu ñu ngi nuyu sëriñ Cheikh Basiiru Mbakke moom sëriñ Abdou Khader si turu sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall nuyoo boo xam ne ñu ngi ko jaarale si jëwriñam yi toog di sëriñ Saliou Fall ak ñi mu àndal muy ay rakkam ak i doomam ni ko sëriñ bi waxe sëriñ baa ngi jot li ab nuyoo ak i siyaar ci jëwriñam ji du Modou Mountakha di ko teg ci loxol sëriñ Basirou Mbakke di ñaan yàlla sama borom kàttanal leen te wéral leen yéene ji am ci liggéeyu sëñ bi ñu def ci loo kawe seen njort te ànd ko taalibe yi sëriñ bi wax ne moom de mi ngi dollee sant bu baax a baax cant gi li ko waral mooy moom dafa wax ni li ko fi indi te bàyyi ko fi mooy jëfe ndigali sëñ Tuubaa yi rek sëriñ moo Modou Aminta Fall daana def waxtu wu ndaw masaa bàyyi ko fi sëñ Tuubaa ñëw fi moom indi ndigal balaa wax ndigal la dafa wut addiya akum am neexal jox ko ko ngir xam ne li koy dundal mooy jëfe ndigal moom la ko ndaw loolee indil loolu yi nag ñoom ñoo ñëpp tàbbi nañ si Sering bi di dollee sant bu baakha a baax di wax Cheikh basirou Mbacké mom serigne Abdou Khader ne ko mom day liko fi bayyi muy jëfe serigne bi rek jangoro joji ji nga xam day moy ñak a mën serigne bi lol de neena na yene mu dal ko mukk sedina lepp luy ndigal bayiko keur serigne Touba ñew keur Cheikh ibrahim Fall fas na yéene ànd kook njabootug Cheikh Rafal gi ñu jëfe ko nako serigne bi ndax Cheikh Ibra moo waxoon sëñ Tuubaa ne ko yow féeteel ak sa boroom yow bi ko xam ma féeteeg yow man mi la xam sëñ Tuubaa nag féete ga mu féete woon ak boroomam kenn ku ne xam na lam sa am ak lam ko jural waaye Cheikh Fall it fa mu féete woon Cheikh Fall sëñ Tuubaa mooy feeñ nii si ba si jataay bii nu toog ndax sëriñ Basiiru mii di wax di doomi sëriñ Abdou Khadir Mbakke ndigalu sëriñ bi rek moom lay dox amul jënn yitte yu dul bëggug sëriñ bi loolee nag lépp tàbbi na si liggéeyub Cheikh Rafal ba kon nag ñoom ñi nga xam ne fi ñoom la loolu sosoo fas nañ yéene ku bokk si seenu njaboot lenn rek mooy sa jubluwaay mooy ndigal lu jóge kër sëñ Touba agsi ñu jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ Cheikh Basirou sëriñ bi nee na lii ko sëriñ bi digal fas na yéene jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee ba mu amee ko nu ko nu ko gënal muy ñaan yalla sa borom yagal ko fi mu yag ko jox ndigal mu yag ko jife mok ak njabotam mom nak baxawul wax comme ni nga ko serigne bi waxame jëf rek deglu ndigal jëfé ko rek kon kaddu yi may jotali mu jëm nak ci mbollem talibé yi képp ko xamanteni ki sa yang ko ci sunu jambat jadi di maam Cheikh Ibrahima Fall am nga ndigalul jekk xamni li serigne bi digle te bëgg ko sëriñ bi digal na képp ko dib taalibe bu àjjuma jàmm nu daje fa gaar ba ñu ko sëriñ bi waxee ndigal lu nu nu joxoñ ñu def ko ñu defe ko na ko sëriñ bi bëggee ndigal nag bokkut ak jëfe am xel ndax xel moom ni sëñ Saliou waxoon rek day dem ci garab yi dem ci géej gi dem fu ne waaye tànk moom tege ci wu yoon mooy tax mu àgg fa mu jëm nun mbaay faal nag li nu tënk mooy ndigalu sëriñ bi buñ nee wow na wow na buñ nee tooy na tooy na sëriñ bi am di dafa wax ni amul génn bëgg amul lenn lu muy sàkkul boppam bu noppee mën a jëfe ndigalul sëriñ bi mooy defatu fi dara loolu nag ñeel na mbooleem ko di taalibe te yaakaar maam Cheikh Ibrahima kon bu àjjuma ak jàmm ñu daje fa rek yar bi nu nu xamee ak teggin yi ndax Cheikh Ibrahima Fall ba mu koy jàngale dafa ne nanu xool makaarimal axlaax nañ teg suñu bët ci jikko yu rafet yi mooy ab taalibe dafa war a dajale jikko yu rafet yépp mu xamni waxtu wu sété wala mu lamb xamni amna lu dess mu def itim ci mottali ko waruta nuru ko xamni ki da nga and ci da top sam xel rek fu lu neex nga jëm ndigal moonu teunk kon ndigal la nuy deglu serign bi neena na nañ top ci ginaaw ñi mu tan def leen ay jëwriñ ñu nekk ci kanam ndigal lu nu joxe ñu jëfé ko li serign bi bëgg nak fawu day am ni ko serign Cheikh Bass waxe lu wésu gar bi bu ndigal ñëwaaté ci dëkk bi ni ko serign bi nuko sering bi bëggee sëriñ am di nuko sering bi bëggee rek dana ko ne ame. si diir ba ko sakko nak ak bam ko bëggee jangoro ñatt mëna jëfé ndigalu sëriñ bi mom dalunu mom waaw dalunu ndax def lo man ngoro a ci si ku def lo man yam sa yak ñëpp yam ngoro mi ngi si def lo munut te lu nu bi digal nu def ko bi naga waxon ni kuma defal lo man ma defal lo munut waye kuma defal lo munut ma defal lo jomb nun nak yemuñu si def la nu man lu nu munut ndax sëñ tuwaa bu muy genn di dem booba métti wan na lool waaye la ko yóbbu sëriñ Cheikh Bass yàgg na koo wax mooy pas-pas ak yitte yitte jooji nag moom la ñu defal si suñ taalibe yii ba kenn ku ne lenn dong mooy sa bëgg mooy jëfe ndigal yi soxlawuñ dara bëgguñu dara jëfe ndigalu sëriñ bi incha allah bu àjjuma ak jàmm ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ am di nee na dina ko defee noonu incha allahu ànd koog mbooleem njabootug Cheikh Fall gi ndax mbooleem buntu kër yépp fenn fu ne démb ba ndigal li sant na ma man mii mbooleem buntu kër Cheikh Ibra yi ma jog jokkoo ak ñoom xamal leen ndigal li jóge ci Serigne Mountakha jaar Cheikh Ahmadou Bassir ex fi moom ak mbooleem kër magi taalibe yi kon lii day doon kàddu gi nga xam ne ku ci jot nag xamal ni mooy sab woote wàjju maak jàmm incha allahu ñu daje sa gaar ba te kenn bañ a defal sa bopp sam xel ñu déglu ndigalu sëriñ bi ba bu nu ko jotee soog a mën a jëf ñu ngi sant di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa